di xool ndax Mame Ndiaye sabon sëy bi tas na wala tasul Sénégal ñoo ñaaw jiko te bon jiko waaye Mame Ndiaye Savon xam nga maam Ndiaye moom gaynde la malgré que li muy jaay baaxul mais gaynde la xam nga daf fee génnoon ne maak Moussa Faye pik ak peel di def ay vidéo am di ne waaye xam nga temps yi kenn gisu kook Moussa Faye mu génnee vidéo xaw ma nag sëy bi tas na wala tasul man moom leen na laa lay digal bu la musa fay dóoree mbaa mu la saaga la bu tojee sa bopp bi sax demal bandaas génn di reetaan eebul may sa noon yi luñ lay réewe de yaa fi génnoon ne yéen ñaar pik ak peel bul ma sa tas bu la dóoree bu la xasee bu la saagaa bu la manqué bu tojee sa bopp bi sax riigul jëndal bàmmeel de sax fa ni guy bul divorcé sa noon yëpp a ngi soccu di xaar man nag gëj naa la gis nga def say vidéo ndax yaat Moussa Faye ñaari fan ñettoon ngeen génn di salone nekk hôtel di def seeni vidéo di salone di jàppise loolu gisatuma ko xaw ma nag foo nekk waaye jàppal mu dëgër te yéel sëy bi ba mu dëgër bul bàyyi bu ci génn de su ma jugee foofu nag nee ma fu ma jëm ca journaliste ba doon laaj Baye Zal yi xam nga nee naa la dañuy xëy dem taxani dem ca station ba jënd seen essence di wut nag ku ñu taal ba nga tàkk di jaf-jafi journaliste ba daa invité Baye waaye fu mu dugg Baye ne ko génnal du foofu fu mu dugg Baye ne ko génnal Baye Zal yor ay question wam yoo xamante ne question bu mu riig rek mu riigu ca dëjookaay ba am na ñu mën a tontu seeni question de waaye am na ñoo xam ne journaliste yi dañ lay dugal dugal ba nga dugg nag xoola ñu rocceeku ndànk ku nekk di kaanag di teg waaye Baye Zal ba mu ko ne Omaro mu ne ko génn na wax ci man lu rafet te baalu na ma ak publiquement baal naa ko mu nekk nag euh, Sidi Diop fecckatam yeeg ñëpp ngay rocci foofu di indi ca Waly sek Baye Zal ne ko ku nekk noo ko santire Baye Zal yaa mën a tontu nee naa la yaa mën ya ëpp doole yaa gën a féete xale bu la kenn jaxase kenn liggéeyal sa liggéey jàpp sa njàmbur boole patak organisé e eh, ñun fans yi bëgg nañ la ah ba nga nekkee ak Waly ba tey delluwul gannaaw yéen nag laa bëgg ngeen dem li Waly Seck di pare ngeen jàpp ca nag def promo bi rek mu daal di jël rek raw gàddu ga bu ma jógee foofu nag e ala kama sala na xira atoy sa sabali bref kuram ba mu dëppoo mel ni potu sàmbur xam ngeen potu samburu gone yooyu kuram maki maquillage baa nga débordé mu wax ba sëdit ya taxaw ba yow yàqiti mu laa naa kuram maki xanaa ay milliards lañ koy fay wala ay million yow e kuram maki mi pànk na de la ilaha illallah waa kii lu ko jaral lii yow kanam ga nag xam nga boo xeesalee booy histoire sa kanam day xonq réew ya di génn boo gisee yaramu kuramaki ba mel ni fol-fol bu ñu jaxasee ak euh, fuddan kuramakee ngay wax ba sëdit ya jub gerefaas ba tas gerefaas ba nag mu nga mel ne potu sàmburu gone yooyu di toog e kura Macky Sall mi war na la fay ay milliards de Sénégal nag lenn laa leen di wax la woon woon de léegi ku koy yor da ngay sa loxo day set wecci weex tàll de melatul ni avant de nga xam ne dangay nekk ci réew mi di def lu la neex e léegi loolu amatu fi de la woon woon ni na de sénégalais yi dañu yeewu de dañoo yeewu xam li xew ci dëkk bi léegi bu fait très attention gis nga sama vidéo nag bere fag yaa xayti laa naa waru ko a am ah doy na waar